ay seen sax waaye itam di siyaara kilifa yu mel ni yii tey toog moom ba ci kenn ku ma ci bàyyi ku lamb ñu laal itam xol bi na yëpp ni moom laal na xol laal na ñëpp jaajëfal na ñëpp sant na ñëpp gërëm na ñëpp wax dëgg fa yàlla fi ngeen bàyyi ko na waaye naka jaay ko jaar lan moo ko jaar. mooy lépp yàlla gën a seen dënn dund ko teg ca génn lu mu sori sori sori daal seen jéegu de wuti seen Moussa loolu la waxoon dañu wax foo ay fekk sa borom sa doole la ngeen daal seen jéegu ñëw doole ñu fii ci ndam yi kon gàcce gàllamay ya yàlla yàlla taxu leen taxaw leen biir ak biir jaay seen Moussa waaye di gërëm tam suñu dëkkandoo yi gis nga jënd yaa ngi toog nga xamante ne lu sumb ñu ànd teg moom imaam Mansour la ngeen def sa nga yaram seen yi seen jóg kenn yàlla ba kenn baax seen amul gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp wax dëgg yàlla te nag ci mbir mi ñu baal la tax tëb yëpp li tax ñu nekk di kàddu di waxtaan mooy dafa am lu ñu bëgg a leeral li ñu bëgg a leeral mooy dafa am lu ñu tuddee tuddee bés ci biir Cheikh Moussa ñu daan ko gis ci làmb bu ñu amee làmb ni tuddee lañu làmb ni diw sàngam bu ñu amee tànn bés ni tuddee lañu tànn bés ni diw sàngam ña mbokki pas-pas lu tax mënuñoo tuddantee bés seen biir ñoom waaye tuddee gi ñu tuddee bés dana wax saa su ne lépp ñu koom la wut koom la ko ñenn ñi di yaakaare bëgg mooy dama ne ab jàmbaar dëgg la ñuy tuddee ab bés ndax képp ko tuddee doom da ko nooloo waaye koo tuddee bés njàmbaaram tax tuddee bés moo xam ndax njàmbaaram ci koosa moo xam ndax njàmbaaram ci diine li ñu tuddee bés nag seen njàmbaar ci diine moo tax ñoo tuddee ay bés nag moo tax kon ñu tànnoon ci bés bii di bésu ndar bii ñu ne Cheikh Abdou Ngom kenn ku ne xam ni kii moo nekkoon bëgg dem Cheikh si sëñ Ndiaye borom daal Cheikh Moussa bi may làkk su ma la làkkoo moom Cheikh Abdou Ngom nii ku daan ñëw ci Cheikh Moussa moom waa Cheikh Moussa lu mu wax tey kon nag ci jàmbaar sax bi tëdd yi ci la bokk ñoom ba ñu ànd ak Cheikh Moussa boobu ànd ak Cheikh na ba ñu topp Cheikh na ndax Cheikh Moussa te boobu yëf yi mérite ni mu mel tey yi comme ni mu yombee tey yi koo xamante ne soo ko toppee ñu askan la lii fa koo xamante ne soo àndee moom ñu la daal gën a xeex koo xam ne soo àndee moom ñu la bëgg doon ci diine islam ba ñenn ñi nit ñu bari ci sang yi dañu la génnoon si kër ci ànd bi ñu àndoon seen message seen ñamoon daal moom nit ci la bokk kon liggéey islam nit yàgg na koo déglu dem na ba dëjël ko. dem na ba ñu dëjël ko te fekk li mu daal di ko moo tax ñëw du fan de lépp nag kii nag ñuy toog jiwu taxu yaa bu ñu delloo ci ñun ci ñun ci yëpp ñu sala sala ak saxaaba yi tàngoon na métti woon na taw na lool waaye fu mu mujjee tey jii ñëpp dina jëriñu ba li doon ñoo xamante ni mënoo tudd yonent bi sala sala te sa yoon ci ñeenti saxaaba yi mooy Ababacar Ousmane Ali ak Seydina Omar waaye dafa tey xam nañu aw yoon ba nga ci aw ngir ba ñëpp nga ci aw tey moo tax ñu ne booy teg leen cotisation te boo leen saafara teg ko dafay des waaye ku wax seen cotisation si seen yaakaar daal te tuddoo nii wallaay teg teg ko lay des ndax dañu xam ne aw yoon ba mu leer ñu ne kon dañ ci fi tànn ñu boole ko tuddee ko bés bi nag ñu ñu tuddee ko bés bi mooy darajaale ko bés bi la ko war nag ko seen jamono joon ma delluwaat ci li ñu yoon la sagal mooy koo xamante ne def na dara ba tax nga sargal ko ñu tànn ci ñu mën a soxla ñu jaar ci biir kër gi. defe naa ñu defe naa ñi nga xam ne nii pour rajo war nañu moom waaye kenn ku ne xam ne ak njàmbaar ci biir kër gi damay fàttali ko Pambal te Pambal bu muy tàng Pambal tàng la mu métti. jaamu yàlla joxal ko borom ci la ngeen laa ilaha illallah moo tax laa ilaha illallah dafay écraser lépp loo xamante ni ñëw la. or yàlla mu wax bii tànkaay bu laal bii bi dafay. allahu moom la téye mu jàpp ko ba tey dara mu tur ndigal gii ñu ne jàmbaar jooju fële mu ne jigéen ñi nag kon nag ñu jël dukkee la ko li nga xamante ne maanaam moom mooy ñun tàggal bi bi tey kii moom solo bi ñu jaay ngir jàmbaar ci dukkee gi waaye nag fu may geeree mooy Cheikh Souleymane Niang Gaïndé Moulay moom tamit foofu moom tamit sàggal ci bés bi daa jàmbaar Cheikh Souleymane Niang Cheikh Moussa gërëm na ko Cheikh Souleymane Niang njabootu Cheikh Moussa gërëm nañ ko Cheikh Souleymane Niang ay mbokku taalibeem gërëm nañ ko Cheikh Souleymane Niang ay mbokku taalibeem gërëm nañ ko Cheikh Souleymane Niang njaboot gi Cheikh Souleymane Niang njaboot gi gërëm nañ ko lu mu am yóbbu na daal lu mu jur yóbbu daal ñoom ñi kenn ku ne am nga say doom say doom nga si kër Cheikh Souleymane Niang lu mu jur yóbbu daal loolu yombul de. waaye jëfandoo problème xam nga ne kii def ay millions nga naan doon di sacré loo ko sax mënul la. am na nit. ban la ban la. Cheikh Souleymane Niang Cheikh Deme. kàddu la pour seen bu teg lii moom moo ko moom. daay wax Ndiaye moo ko sàggale ngir maanaam doxalin ci kër Sëñ Moussa ne ko ñu ko rey ñu ngi koy bëgg. ñu ngi koy ñaan yàlla jox yaa jox seen bu teg lii. lii bay. déedéet du ñu fay waaye dina am lu ñu ndax loo ko jox tey gis nga lépp lool kon gàcce daal la may ñaan jërë ngeen jëf. nit jaay dañ ko sagal jëloon na gàffu kii nga xamante ne tey jii Bamba soxna bi benn bés boobu Bamba te Bamba yu njëkkee mu xool ma yër ma lool te fi muy fekk boobu pos yu jiitu na mu xool mu ah yaatu ma ne ma bàyyi ko yërëm naa la bàyyi mu daal. kon ñu mos la génne te xaas yu mun na luy gën baax ci yoon si gan yi kon jëlee nañ ko doon defar xool nañ ci solidarité boobu noonu mooy solo bu ñu jaay kon gàtt yàlla ma jërëjëf soxna soxna Aliou yow yaa ngi nangu yow xaritam bii jërëjëf naa ne ku xamul ne naan gars yi dañuy puukaree puukaree wuñu dañuy sant yàlla. Cheikh benn tur ne la tel de tàggat di ko ba mel ne da ngay yàq gàtt ko. dinaa naa yàlla. doomi dara la buñ dugaloon baax dugaloon dara la andi ah ah kii sa laaj daa borom dara moom moom kii xamante ne moo ma def li ma doon sama papa mi ngi toog li ci man du ma moom def ci man de déedéet du moom de moom papa papa lii defoo ko ci man sama sànq moo ko def ci man. Moussa Isa mënu ko moo tax kon man nga am fi wax ci jamono ni moom li ci man bu moo ko def ci man waaye sama sang bàyyi sëñ bi moo ko def ci man te na ma la ko kon jërëjëf waaye lépp dana jël suñu génn ndax moom mii bi sa la ñëw ah waaw Cheikh Abdou moom Cheikh Abdou moom bii moom la ci jox ñu sàggalee ko ñu wax Cheikh Moussa dafa nga ko lu ne Cheikh Moussa dina jàll nga ko lu ne wax dëgg yàlla kon daara ñu war a sàggale lii ñu la jàkkee nga maa jaajëf yàlla yàlla dëggal seen taxawaay lii laay ñu loon maa ngi tu maa ngi jégalu su fekkee ne am na lenn loo xamante ne wax naa ko luy doon luy gaañ maa ngi jégalu su fekkee loo xamante ne luy jënd a baax jërë ngeen dana gën jox bi dana gën jox bi. ñu sañoon mu njëkkee ci ñun ndax loolu mooy njëkkante ci yàlla maanaam mujjee ci yàlla du soxarante bañante waaye ku ci nekk da xool li gën a kawe nga def ko. l'histoire retiendra ne ci moom la yàlla jaarale xelum njëkk yéene tabaxal Cheikh Moussa Cissé kër loolu dafa rëy lool tey dama tuur xéwal ndax moom dama ko xam ñu yàgg di daje ci ay jataay ci jamonoy tarbiya bu ma dajeel nag moom Ndakaar dama koy nëbbatu ndax xam naa ni liggéeyam day yàqu keroog ndax dañuy taxaw sept heures ba timis fekk ko ñuy wax yàlla bu paree mu jaar ni ma jaar ne du ma jàngi du liggéey moo tax bu ma ko njëkkee gis rek damay koy ndax xam naa ne du liggéey bu ko suñu borom dimbalee ba mu toll nii tey kër Cheikh def ndam lu toll nii ndax am nay jamono dañu daan dégg ñu naan ku ñuy natt sa xam-xam ci senegal ndar ngay dem waaye ku ñuy nangu sa xam-xam Mauritanie ngay dem kon bu ñëwee ba ndar lu mel nii am fi kooku jar na sant moo tax mu bëgg mbégte bi ñu yàlla booleel tey ñu ñaanal ko yàlla pàcc bii nga xam ne moom jënd na ko yéene ko def kër Cheikh Moussa Cissé Ndiamé daal lu gërëm de amagul kër daal kër Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daal loolu dafa rëy kon jeex bi bàyyi ji bi waxoon mooy defarul boppam waaye sëriñam la jiital ci léppam moo tax suñu borom war a wàccewaat mbir mi ci moom ñu ñaanal ko déwén buñ fi yegg si fekk kër gi pare na ba kilifa yi ñëw di ko inauguré waaye tamit ñu ñaanal tamit suñu bopp ba bàyyi bët mën a am kër Cheikh Moussa ca Louga waa Kër Massar mën a am kër Cheikh Moussa ca Kër Massar waa Thiès ba Sénégal wërngël këpp ba extérieur nag ndax tax taalibe Cheikh Moussa yaa ngi ba Malaisie ñu ngi ba fu li Cheikh Moussa waxoon ñu ngi koy topp ñu ngi koy gis sama loxo fii ba Màkka ba Baxdaad ba àdduna war ngeen képp bari ki démb la sama benn ndongo woo ma Malaisie mu naa fi koo xamante ni jigéen koo xam ne seen famille yëpp ay xërëmkat dañu woon waaye dafa gindeeku taxañ ay bagages xam ne dafay taxawal njàngam dem parce que foog mu indi waa këram yi fii ne Cheikh bi da ngay bàyyi liggéey bi nga toog samp yàlla ji tax lii mosuñ xam ne leer bu mel nii am na ci kaw suuf kon Cheikh Moussa léppam day dem fu ne kon sàngi li ñaan ngeen ñaanal ñu suñu suñu xarit bi suñu waaji yéenéen bi suñu borom matal ko ba mu mët sëpp ba mu kawe ñot waaye nag mu law tasaaru fépp ñu dolli tamit di jaajëfal suñu mbokk force de l'ordre yi ni ko bàyyi ñu waxe woon sànq ndax ñooñu taxatal suñu bopp ndax ñoom tamit ñoo jaay seen jot jaay seen nelaw jaay seen lépp ngir lan ngir ñu ko a am dal te gis nga ni tànt bi dalee rafet gis nga yar bi ak teggin bi ñu àndal ñoom tamit yàlla leen yàlla yokk bàyyi ko mu yokk ba yëg ko yokk ba yëg ko yéene yi nga am ci biir kër Cheikh Moussa suñu borom di ko yaatal matale ko ci njaboot ci saay ak ci baatin macha allah jërëjëf jërëjëf